sëriñ axma amoo moroom jukkoy yonen ba moom la yor lu am naqar ba dax mu mer du léb julli ngir ñàkk wer bul ni ma déet lii de dëggu mbokk yu tedd yi ni déglu te di ñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono ji ci pàkk bu sell bii Touba Daaru Xuddus jàkkaarloo ak sang bu sell bi Serigne Ahmadou Mbakke moom Serigne Ali moom Cheikh Mouhamadul Moustapha mu feggoo ak mboolem njaboot gépp ak magi taalibe yi ak jëwriñ yi seen xel dana war a mën a dem ci bisub sunu jàmbaar ja murit saadix ba kenn si njabootu xaadimu rasul di Serigne Ahmadou Mbakke moom Cheikh Mouhamadul mustafa bis boobu nag. di ndigal bàyyi bàyyikoo ci Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak wér jaar ci Serigne Ahmadou Moukhtar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Alioune Mbacké ñëw nag ci Serigne Ahmadou Mbacké moom Serigne Aliou mu fas yéene ànd ak njaboot gépp ak taalibe yépp ak kuy wëllëre fàttali bis boobu nga xamee ni si bisub alquran la di bisub kenn ci njabootu Serigne Touba mooy bisub Serigne Ahmadou Mbacké ren mu war a doon alxemes ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2019 fii ci Touba Daaru Xudus ndax Serigne cent Mbacké 1945 bi Serigne Modou Moustapha demee la ko Serigne Cheikh Mbacké teg ci kanamu nit ñi képp ku mën a doon te nga yaakaar Serigne Modou Moustapha moo lay tuddal doom moo lay juleelum néew moo lay génnee ci ay jafe kon nag yi dama bëgg nu am ngor am diine fas yéene fay ndaar bi xolam ci muy sëriñ Ahmadou Mbacké Tundóo di ñëw tey ni ko sëriñ Ahmadou waxee léegi rek di fàttali bis boo xam ne dañ ko jotoon ndigal la ci sëriñ Aliou Mbacké mu jiite ko fi benn yoon sun boroom def mu ñibbi àjjana waaye ba mu daan demit jox na ndigal sëriñ ahmadu mii mu teewal ko ci kër gi ndigal loole mu teg ko ci loxoom mu mel ne kon bis bi suñ kàddu ci yett yëf lay jëm muy liy firndeel bis bi te mooy jëfe ndigal ak fàttaliku ak ñaan ndigal li mooy ni ma ko waxee rek sëñ Aliou Mbacke moo ko digle woon jiite ko ba muy waaj a dem mu jot bàyyi fi ndigal li loola doomam jii fi nekk wutu ko fi di ko wéyal ba tey di ci woo ñëpp di ci seenu ñëpp kenn ku ci nekk taxawaay ba nga ci daa taxaw nga fas yéene fetliwaat sa laxasaay boo doon def benn nga def fukk mbaa téeméer mbaa junni mbaa loo man dañuy wax tant que ci turu daayira Mouwahidoul Asfiyahi bi nga xam ne Baye Ahmadou Dieng Xaar moo ko jiite mooy yi ne Touba ak yi ne ci biti Touba yëpp ñu ngi ko yëg daal bépp jullit bu naan asadu an la ilaha illallah wa asadu an muhammad rasulullah ñu ngi lay yëgal seen bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom te jotoon ndigal ci ki nga xam ne nii moo fi doonoon Cheikh Mouhamadoul Moustapha muy Serigne Aliou Mbacke yàlla ñu ko yàlla fayal bis bi nag mu ngi tombeek ñaari fan ak euh, benn ci diggu tabaski bis bi ko jiit nag mooy conférence bi mu ngi doon ñaari fan ak ñeent ci diggu tabaski bu ko dee loolu lépp nag liñ ci bëgg mooy dundalaat liggéeyu sëñ Axma ak ndono li nga xam ne moom la bàyyee mag ñi booba léegi ñu koy sàmm te dara ruur ci yàlla ñu ko borom téyel ñu yàgg def bépp daayira Mouhaddina nag buñ tudd ak buñ tudd yëgal ne ndigal li sëñ bi nee na màggal gi bu ne suba la ba keroog ñuy yeewee kenn amatul sañ-sañu dem fenn wala ngay def leen lu ne ci ndigal li di ko yëgal mbooleem soxna yëpp bu ñu ci tuddee soxna Baali ak soxna Maam Faat Dem danañu bàlle mboolem ñëpp mboolem daara yi ñu ko daan seqal muy daara Baye Cheikh Diaw ci euh, sura euh, te sëñ Cheikh Diaw ne fa moom it ñu ngi ko ko yëgal baax ak daara daara kaamil yi nga xam ne nii moom la mag yi daara Xuddoos yu nekk ñoom ñu ngi leen koy yëgal ak daara Baye Cheikh Jaxate di ko yëgale suñ xaali jaxati mu waxal ñu ko mboolem ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Mamadou Muntaxa di séjaloo njàngum alxuraan mi ci waa Daaru Musse waa Daaru Salaam waa Njaarim ñoom ñëpp ñu ngi leen koy yëgal ñu fasal ci sëñ Ahmad ci alxuraan ji ndax ku ne xam ne sañ Ahmad moom alxuraan rek moo koy jëriñ ndax ndoona li fi bàyyi woon doon ko séddale bokkoon na ci sàmm daara ji nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha bàyyi woon na ko fi di ko doxal bis bi nag ñu ngi ko tuddee Cheikh Ahmadou Bassila radiyallahu anhu di ko yëgal xalifaam bu baax di sëriñ Mahmoudan la ak bàyyi sëriñ Silla may porte parole ba ak sëti Cheikh Madiba Silla yi ak taalibe yi sëñ Madiba di ko yëgal njabootu sëñ Abdou di ko yëgalit njabootu alxaaji Mouhamadul Amin Baara di ko yëgal njabootu sëriñ Amar Fall mu Cheikh Mouhamadul Amin Baara di ko yëgal njabootu sëñ di ko yëgal njabootu sëriñ Abdul Xadim Baara di ko yëgal njabootu sëriñ Xaadim Awa Ba moom Cheikh moom Cheikh Baara di ko yëgalit njabootu sëriñ Muudu Abdul Xaadar ñi nga xam ne ñoom lañ tudde woon daaw conférence bi ñu ngi leen koy fàttali bu baax eh, incha allahu rabbi tamit dinañ fi amal benn exposé boo xamee ni ci dund sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi lay doon ak benn tabaron boo xamee ni dañ koy dañ koy def ci dund Cheikh Madi Basila radiyallahu anhu ki nga xamee ne moo ñuy defal waxtaan wi mooy sëriñ Mbacke Abdourahman incha allahu rabbi tam bi nag incha allahu rabbi ab sëriñ la boo xam ne dañ leen koo dencal ba keroog ngeen ñëw ñu jox leen ko taskati xibaar yi it eh, ñoom tamit dinañ ko tasaare incha allahu rabbi sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn di ko fàttali tamit ñi nga xamee ne ay bokki bokkam lañ tañ yaroon tañ yaroo ci sëriñ Ahmadou Mbacke Tindo tañ bokk ci liggéey bi sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali mboolem diwaanu muridina bi nga xamee ne moo lëkkale mboolem bundu kër Cheikh Mahamadou Moustapha yi te sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma jiite ko sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali mboolem saxadatu abraar bi nga xam ne moo lëkkale mboolem njaboot Cheikh la Lamine Bara Guy Mbind yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen ko yëgal di ko yëgal tamit magam di kilifaam di sëriñ Moustapha moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne moo fi nekkee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom Cheikh Sidi Moukhtar sëriñ bi nee na ngi koy fàttali ak mboolem njabootu guy di ko fàttali tamit njabootu sëriñ eh, Mor Sekri mi nga xamee ni eh, sëriñ Mor Sekri mi nga xamee ni ci seexi sëriñ Tuubaa yi la bokkoon di ko fàttali tamit ak njabootam sëriñ Amdi Sekri Dial kon sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn settewul kenn ñëpp la woo comme ni ko Baye Ahmadou Dieng waxee sëñ Ahmadou Mbacke Tindóo dafee taxawoon taxawaay bu am solo ndax boo fi limee ñetti kër bala ngaa ñeenteel di nga gis jigéen joo xam ne moom lañ ko bàyyile woon mu muur ko wala mu maye ko ci biir këram gi wala mu leewu doomam tuddal ko lenn dong nag lañ ko deseel mooy sëñ Ahmadou Mbackeem sëriñ àllu mi fi yàlla teg tammat ko sëkk bis bi muy woote li ci jigéen mën yomb na lool muy xëyee sa kër ñëw yendu ci waañ bi lu fi jigéen war a def nga def ko fi maa ngi ñaan képp kuy dégg sama kàddu te yeewoo Daaru Xuddoos soo xëyee nangu ñu fekk ci waañ wi di ci di ci woo mbooleem ñi nga xam ne ñoom la séqal bis bi di ay bokki boppam séq ak ñoom Daaru Xuddoos di ko tàmbalee ci kër sëñ Cheikh Ahmadou Ahmadou Mbacke ba ci kër sëñ Mouhamadul Fadal euh, mbooleem njabootam gu jigéen gi tàmbalee ci soxna Mariam ba ci soxna Maam Fati Mariama Lo ku mel ne maire de la commune ñu ngi koy woo ñu ngi woo Euh, sous-préfet bi nga xam ne moo jiite moo fi moo fi nekk représentant de l'État ak ñëpp ñoo xam ne si la ñoom ñoo ñu am na nañu rôle bu ñuy joué ci biir fii ñu ne ci ci dëkkanwaay bi. jërëjëf Serigne Khadim Mbacké kon mbokki jurit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu kañ la alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2019 fii ci Touba Darou Khoudoss mooy bisub Serigne Ahmadou mbakke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ñi ngeen ko xamee. bu ñu nee suba la di ba ñaar fukki fan ak ñeent ci la ñuy amal conférence bu am solo conférence bi nag ki koy animé mooy Serigne Mbacke Abdourahmane ñu tuddee ko nag Serigne Madiba Sylla ba tax na ñoo ngi koy yëgal mbooleem njabootu Serigne Madiba Sylla gépp Serigne Ahmadou Mbacke nag nee na ma ngi koy yëgal mbokk yi xarit yi soppe yi wëllëre yi mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yi mboolem buntu kër cheikh Serigne Touba yi autorité yi képp ku yor ndomb ak tànk mbooleem daayira yi mboolem kuy yëngu ci wàllu diine wala développement sëriñ baa ngi la ko yëgal di ko yëgal bu baax nag waa conseil départemental bépp bàyyiwul kenn bis bi jàng alquran la ak xasida ak bernde ak ziar bu ñu demee ba ginnaaw tàkkusaan nag ci la ñuy amal waxtaanu diine bi sëriñ bi ma ngi sant ñëpp di séentu ñëpp di soññi mboolem taalib yi aju ci kër gi nag moo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn satum xadimal mustawa di doomi cheikh mustawa di rakk jeex taawub tafa ku di jul tey ñàkk na bu ma soñoon wala ma doon kon faya kon bilaay kon sëriñ bu baax bi ngeen xamoon xam nga ne kon tey dellu